asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan bokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel seen youtube yi ne ci biir àdduna bi ñiy xool ci facebook bi wala whatsapp yi ñiy déglu rajo yi ak di xool ci image yi seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll moo del siwaat di leen nuyu di leen jaar di leen balu àq di leen ko baal di ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal lool doole ak wéram di yëkkati ay kàddu yu gàtt yu jëm ci mbirum mm, lii di niru balaa walla mbas wala nattu mu tege ci kaw àdduna bépp euh, may wax nag ci sama pas-pas te jortu ne murit yépp fa lañ war a nekk ndax sëriñ tubaa moom danga koy gëm baa nga yaakaar ko baa nga wóolu ko def na lu ko nit gëme def na lu ko nit yaakaare def na lu ko nit wóoloo may laaj àdduna nag wala boog ñun ñi jaayanteek sëriñ tubaa ndax sunu pas-pas ci sëriñ tubaa dañoo gëmut li wax wala dañ ko wóoluwut wala nan la demee ba tax jàngoro ji nga xam ne wax nañ ne feeñoon na ca siin te ñu wax ne am na sénégalais yu nekk siin te ba dalu ba fi mu ne dalagu leen ñu koy teg tegtale di ko joxoñ di ko joxoñ ba indi ko Sénégal joxoñ ko ba indi ko Touba ma xool ci benn site internet mu wax ne sëriñ muntaxaa nee na nañ arrêté mbooleem daje yi ba jeneen jamono kooku day lim bind xanaa dégluwul déclaration sëñ Mountakha bi Serigne Cheikh def wala Cheikh Mamadou Bachir sëñ Mountakha moom naka jëkk dafa baaxoo woon bu jógee Poroxaan day fatu ba ubbi mu ñaan ne nañ ma may ba ma ba kon loolu ki ko bind na delluwaat ca ab sitam mu dind ko te xam ne du wax sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa li mu wax sëriñ Cheikh mu sëñ Abdou Latif wax na ko bi ci des nag mooy murit yi maa ngi ñëw ci yéen màggalu kasu rajab moo dëgmal màggalu poroxaan moom wan nañ ko ginnaaw benn murit du ne poroxaan laa jëlee jàngoro sàngam lu weesu am soj bokk yi soj ak siburu ñoo nuroo te comme jàpp day téye say tenqo tubaab xamut si buru ci loolu mooy grippe lii dal nit ñi mais suut ab grippe képp du la nen may wax nag murit yi nga xam ne kazu rajab mël na ñoo xam ne sëriñ tubaa dafa ñaanoon boromam subhanahu wa taala na ko yàlla aaral ma sama dëkk bii te aaralaale ma lépp wacc xal xarimanan xariman amina wa kun bi yi kafilan damina gis nga sëñ tubaa bi muy aar tubaa di aar murit yi booba sañcagut tubaa murit yi amaguñ te digganteem ak borom subhaanahu wa taala lam fa ñaan la ko yàllay may damay joxe misaal ci luñ teg suñ bët balaa bi gënoon a gaaw te doon balaab saahir nit ñëpp di ci teg seen bët moo doon njéeréer yi am na at moo xam ne njéeréer yëpp dajandoo ñëw ci réew mi ba ko yàq ba sëñ Fàllu déggee benn njéeréer la ci jàppalu benn njéeréer ba mu jàppee njéeréer ba tifli ca njéeréer ba ba mu naawee fu am njéeréer seen nekk ci senegal topp na njéeréer ba génn réew mi sëñ Fallou moomee nga xam ne moo dàqoon njéeréer yi moo woote kasu rajab moom la ñuy màggalal xanaa balaa bi moom tëf sëñ Fallou mooy naan na am mu am du am du am xanaa bu ñu amem tiitaange ci balaa bi ba màggalu kasu rajab di dëgmal ñu war a rafet njort ci ne bu nu ñëwee ci màggalu kasu rajab gi ci ñaan ko sëñ Fallou mu saafara ko loolu yaakaar na benn la ci beneen bi ci topp kenn natt bi lu wut ne sëriñ Abdou Khadir nekkoon na ci ab néeg ay yamb ne ca néeg ba ba sëriñ Abdou Khadir ne surtout bëtam ca yamb ya ba mu leen xoolee yamb yëpp àndandoo jiitle génn ne ba abal ko kon dama leen di xamal ni nan gëm sëñ tubaa te wóolu sëñ tubaa te yaakaar sëñ tubaa te doyloo ko te xam ne jàngoro jii du yàgg mukk bañ dégg na rey na murit du rey sax ab jullit ci Sénégal gii may wax nag ne tubaab yi de seeni pexe àgg na ci bis buñ teree ne jullit yi buñ jaamooti yàlla te bokk na ci tere julli ajuma tere umra tere aj màkka tere màggal yi activités yi diine yooyu yu ñuy def bis buñ ko teree bañ bàyyi ko na la wóor ne nasaraan jekku nañu te lu luñ bëggati ci ñun danañ ko am ndax lenn ngànnaay lañ am te mooy ngànnaay li ñuy jaamoo yàlla sëriñ tubaa ci ceyeen jolof bi tubaa bi jaaxlee ci moom ba jël décision bi ñu laajee labbe bi gën a rëy ci ñoom bari xam-xam daf leen ne li feek diggam ak yàlla doxu leen fii du ngeen ko mënal dara lu feek doxu leen diggam ak yàlla du ngeen ko mënal dara boobee la tubaab bi ne kon nañ ko indi njaareem ba mu moom bu buñ mënta dox diggam ak yàlla it njabootam gi ñu fexe ba seen bët yi gis lu naqar yàlla wala seen làmmiñ wi di ko wax wala seen nopp yi di ko dégg wala ñoom ci seen bopp ñu di ko jëf kon ñun lenn lan ñu mën a gañee mooy fexe ba dox suñ diggante ak suñ pas-pas te damaa dégg jàngoro ji ba mu jógee ba fi mu ne mbooleem kuy wax rek attaqué attaqué woon nit ñi pas-pas ngay attaqué mooy nañ arrêté ndaje yi jullig ajuma ab jullit boo ko teree jullig ajuma lan nga ko digal te julli di farata suñ borom subhanahu wa taala santaane ko ba àgg ci ne nit ki sax bu feebaroon ba ne lacc nga xam ne feebar ba da koo gañe julli du ko wàcc ñu bëgg laa na tere ak julli bëgg ñoo tere ak màkka gi nga xamante ne bii ponki lislaam yi ci la bokk iqaamu salaat itaau zakat sawmu ramadan hajjul bayti lañ wax bëgg ñoo tere umra nga xam ne siyaara ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam buñ ñu ko teree bëgg ñoo tere nag ñëw tubaa ñëw tubaa mooy leen daje activité yoonu murit may wax jullit yi di wax murit yi di wax taalibé yi sëriñ Tuubaa yi màggalu kasu rajab buñ ne woon ku ko màggali dee sax murit yëpp dañoo war a màggali buñ ne woon ku ko màggali dee dañoo waroon a dee ci yoon wi bañ xam ne sëñ Tuubaa jaral nañu ko rawatina mu wóor ma ne ku ñëw kasu rajab ku ñëw Tuubaa jàngoro ji tàggoo jàngoro ji moom doo ko danga koy dégg waaye doo ko gis kon mbokk yi seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll mi ngi jox rendez-vous ñëpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru tubaab di la vingt 21 dimanche ci màggalu kasu rajab goog Cheikh Mahamadul Fadal gii ñu xam ne bokk yi tiitaange li lii di le 22 le 22 dimanche di le 22 yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom mbenn ci weer wi di màggalu kasu rajab bis boobu la yàlla rañaane woon yonant bi sallallahu alayhi wa sallam yóbbu ko ci kaw jox ko julli yu juróom bis boobu yi dëgmal ñu bëgg a dox suñu digganteek julli yu juróom nañu leen lank ba wut ku ñuy lànkale te nag delluwaat sëriñ Touba génn na ay xasida yoo xam ne waxuma la jàngoro ji nekk Touba wala mu nekk Sénégal wala mu nekk Afrique wala mu nekk Europe waaye mën nañ cee xettali wala ñu nekk siin sëñ Mourtala sëñ taxaa génne na ko yaa rabbi bil Mustafa al Muxtaari min mudarin safihi ummatihi fil badi wal xadari ba xasida ga jeex génne na gënal xasida allahu hayyun samadun wa baaxi subhanahu su kanafin wa waaxi wa nahnu fi kanafihi lmanihi min kulli charrin wa atansanihi mustamsikina bilxiyaasi ahmada xayril anaami muntahan wa mubtada sëñ tubaa teg ci na man qaalaha koo xam ne jàng ko fii samanil wa baayi ci jamonoy balaa amanahu llahu min al balaayi suñ borom dana la musal ca balaa booba ndax dañoo gëmut li sëñ tubaa wax lu tee ñu delluwaat ci xasida yi sëñ tubaa yi ñaan yi sañ tubaa ñaan ci luy musal ab nit ci balaa mi ngi na xus kon bokk yi nañ leen jàpp ne lii ñuy wax nii doon néewuma amut waaye bu amoon it tubaab yi laqu nañ ci biir ngir dox suñu diggante ak suñu pas-pas loolu nañ ko lànk te doyloo sëñ tubaa wóolu sëñ tubaa te xam ne it sañ sëñ muntaxaa moo ñu gën a jege yàlla moo ñu dàq jaamu yàlla moo gën moo ñu gën a seddub setub xol moo ñu gën a rafet njort moo ñu ëpp yaakaar ca moom lañ doyloo ba jiital ko ci suñu kanam ci ndigalul coobare suñu borom ak ndigalul sëñ tubaa sëñ Tuubaa moomu di Cheikh Mouhamadul Mountakha waxal na boppam ci ne jàngoro ji moom pas-pas bi mu ci am mooy du du gaañ kenn du lor kenn kon nag loolee ci sëñ Mountakha am te ñaan diggam ak borom subhanahu wa taala ba yàlla may ko ko nii màggaluk poroxaan sedde ni la màggaluk kasu rajob di sedde ni la màggal yi topp ci ginnaaw yépp ba bañ a àgg ci koor lépp noonu lay sedde kon seen bokkam taalibe Fallou Galass Syll lii rek la ci doon yëkkati ay kàddu di delluwaat nag di sit bi bind ne sëñ Muntaxa tere na ndaje diine yi nee ko tooñ na yoonu murit tooñ na sëñ Tuubaa tooñ na sëñ Muntaxa ndax sëñ Muntaxa waxut loolu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.